lii nga xam ni moo fi xew démb mu doon loo xam ni c'est révoltant ñëpp jortoon nañ ñëpp ragaloon nañ ñëpp foogoon nañ ni ñëwewul ne wala gars yi duñ ko def et ils l'ont fait pourtant c'est cette condamnation lourde qui a été prononcée à l'encontre de Ousmane Sonko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 ku nekk di nga mën jaay sa bopp peuple bi rek décider voilà li ma bëggoon wax ci ubbi